dal leen ak jàmm ñu xëy tàqat nag yéenekaay xëyandoo naka tàmbale ko les échos yéenekaay ñi nga xamante ni dañoo joxante loxo naka ñoom naka amul lu ñu yekkul naka li nga xamante ni moo di HCCT ak li nga moo di conseil constitutionnel ñoom naka mer ñu def rek a jëmale ci conseil constitutionnel ubbil yéenekaay bi na intercoalition boobu boo xamante ni si moo ngi ñëw rek ngir rek ñu googee di HCCT ndax am na ñoo xamante ni si jàpp nañ ne naka dara booy dara boolee jeex indi ko ci dëkk bi ci njariñ naka Déthié Fall ne moom la ñu ak kuréel gi ñu duppee conseil économique social et environnemental nee inutile daru ko ndax ay kuréel yoo xamante ni lañ yóbbu ci xaalis naka bëri na te mënoon na koy dugal feneen daal amul leen loo xamante gis nañ ko mu dal koy def si réew mi ba sa bopp moom si jamono ji nee naka bokkul ci yooyu les vote naka yeewi wàllu noom ñoom boycott nañ bu baax a baax élection membre yi nga xamante ñoo war nekk rek ci ACCT naka yéene bi ne lu waaye munti wax nag xam ne naka loole moom duñ ci bokk tey duñ ci bokk ndax amulul benn njëriñ réew mi réew mi ak élection am naka kañ lay jeex Sud Quotidien ci commencé présidentielle ci atuma février 2024 ab législature boo xamante ci danger dëgg la ndax tak ba leen fale ak léegi bi ñu war amal élection présidentielle loolee tax naka yéenekaay bi nag ne quatorzième législature bi mbaa nekkul ci danger ah ci ban danger la war nekk danger bi kay le soleil yéenekaay dikkaat na ci ak bi nga xamante moo jëm ci effondrement maanaam dal yi nga xamante ni ñoo daanu maanaam menacé ci niveau national ci ñoom naka bokk na ci li nga ci ndax nee na gannaaw covid 19 bi naka beneenu virus boo xamante si détecté nañ ko ci Chine ay Chine fu ñu jëm ak seen virus yi te mooy moom fa mu jëm dem dikkaat na rek ñaari décision yi nga xamante ni intercoalition bu opposition bi di Yewwi ak Wallu daal koy jël ñoom ignoré bu baax a conseil constitutionnel waaye itam nañu wax bokkuñu tey maanaam naka nee li nga xamante ni moo di conseil constitutionnel bi nga xamante ni naka dañoo boycotté élection yi Khalifa Sall Ousmane Sonko ak seeni ñoom ñàkk ñaari décision yi la dal dee posé waaye itam di indiquer clairement li nga xamante ndax amulul benn njëriñ askan wi li waroon a amal njëriñ askan wi naka le verre le journal naka ca la dikkaat naka ak réseaux sociaux yi yéene kaay bi ndax mun nañ koo réguler ci bu baax a baax li nga xamante ni moo di réseaux sociaux boobee xam naa ne du yomb nag l'info yéene kaay dikkaat li nga xamante ni moo di intercoalition wàllu ñoom naka biru nañ bu baax a baax ak ndax nañu membre yi ñooy tabb naka élection yi ñoom bokkuñu ci bokkuñu intercoalition naka bu buggaan géey ñoom naka dal dinañoo crasé maam dal dee tafli loolee nga xamante moo di ACCT ne nañu bokkuñu tey bokkuñu ëllëg Pape Diop naka pour Macky bés bi naka Pape Diop pour Macky yéene bi di fës na koo fësal xalif a prié pour l'ancien président du Sénat accompagné de Aliou ak Mansali ñoom naka dikki démb naka dam dañoo dem naka ca xalif général des Mourides nag gannaaw bi nga xamante si alam nañ élection taxawee ci ndax dañ ko wàññi naka si élection yi daal day génn ak ñetti bastion électoraux le PDS naka nee na ngi dikkaat ci centre des jeux politique ndax tolloon ay diir yoo xamante daanaka fàtte woon nañ ko yéene bi ne naka award moomee mu ngi ci centre des jeux ndax ñoom nag ñoo ngi raamaat di kaan ndànk ci géewu bi ngir rek waajal seen bopp waaye itam fexe rek bopp gën bokk ci làng gi làng ko làmb ji naka di suñu dikkaat nag ci wàllum lamb boobu bu yaatu yaatu Abdou Gueye mooy directeur technique bu Fass nee na Gris Bordeaux mu créé rek li nga xamante ni moo di écurie boppam i nga ne ma nee na waaw waaw ndax am na ci droit bu ko defee naka mu nekk guléet naka foofee ca Fass ndax moom mais Gris Bordeaux bëggoon na ko def lu yàgg-yàgg waaye naka loolee mujjeetu ant ndax moo gën Abdou Gueye ci biir yéene kaay bi nee na loolee moo gën ci moom su ko defee naka dina gën a nekk à l'aise si jamono ji li muy dund metti na lool ñoo ko déggandoo jaa ngeen jëf ëllëg